waxtaan mooy mooy tax jàmm am dialogue aussi doone Moussa Ndiaye mii may dialogal euh, wérut waa sincère lu la wax du ko def nangam nangam déedéet loolu du critère critère wax mooy est-ce que kii di wax ak man am na intérêt ci wax ak man est-ce que man am naa intérêt ci wax ak moom nee naa leen léegi iraniens yi ak américains yi ñu ngi wax pourtant kenn wóoluwut sa morom mais américains yi ñu ngi wax ak iraniens yi parce que ragal nañu Iran Iran am bomb atomique fulla ak fayda mooy lijjanti li ci des cest bu may dem man xam naa li ma fa li ma bëgg moom lay teg keneen sa nangul naa ko mu xam lu mu bëgg mu ñëw teg bu ko defee ñu waxtaan lu ca tukkee ñu xam ne euh, euh, ma ma moo ca tukkee